amateur Equivox TV nuyu nañ leen am mbégte ak bànneex nag di jàkkaarloo waat ak yéen di kontaan rek ci kóolute bi ngeen xam ne rek am ngeen ko ci ñun voilà ma ni ngeen ko gisee nag ñu ngi fii rek ci rond point Liberté 6 fas yéenee nag waxtaan ak askan wi ci euh, tolluwaay bi nga xam ne rek Sénégal am na ko actuellement ginnaaw nag kii di président u PASTEF di Ousmane Sonko. passé euh, guddeem bu njëkk fële ca section de recherche bu Colobane ñu xool nag euh, ñi nga xam ne rek ñoo di askan wi euh, nan lañ ko dundee ak jàngat bi nga xam ne def nañ ko ci boobu lee mbir bu ko defee Gomis danga may daal di topp rek ma daal di jël réaction gars yi ba xam rek nan la ñu jàngatee rek li nga xam ne moom lañ def démb kii di leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko. waaw situation dëkk bi moom ñëpp ko gisandoo quoi yàgg na depuis deux semaines ci ginnaaw ñu ngi wax Sonko Adji Sarr Sonko Adji mais ku wax ku wax dëgg ngir wax yàlla da nga xam ne affaire bi c'est un complot état bi nag moo ko complot parce que euh, Macky Sall def na lecture lecture terrain bi xam na ne instant yi benn adversaire moo ko dese muy Ousmane Sonko. Idrissa Seck Idrissa Seck adversaire am la woon recruté ko bu teg ko teg ko ci kanamam léegi Ousmane Sonko rek moo fi ne potentiel adversaire léegi nag bëggul leneen lu dul te defal ko ndëgg sërëx te ñun ndëgg sërëx boobu Sénégal yëpp comprendre nañ ko ku dul naa fekk xam nga ne lii ndëgg sërëx la. waaw jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko démb tamit loo di ko méttiwul nag di ko méttiwul di ko naqarlu parce que man mii di wax ak yow Ousmane Sonko man moom laa gëm parce que euh, programme bi mu bi mu mu ñu man ci laa d'accord léegi nag li jàpp bi nga jàpp de moom naqar rek lañ ci am naqar rek lañ ci am mais tamit duñ bàyyi mu seddu quoi. Hmm, kon pare ngeen pour yëngalaat. waaw lu lu lu Macky bëgg rek mën nañ ko cee wuyu pare nañ ci lépp. donc yow euh, Sonko mooy sa président. mooy sama président 1000 pour cent Sonko. <laughs> waaw maa leen di nuyu. Euh, di nuyu waa Sénégal yëpp ak ñi seetaan chaîne bi di rafetlu seen liggéey aussi tamit situation bi ni ma ko jàngatee mooy ni ko ñëpp jàngatee rek parce que tey yaakaar naa ne dafa am loo xamante ni tey ñun suñu réew Sénégal lañ nekk te Sénégal dañ ne réewu jàmm la réewu teraanga la nest kon yaakaar naa ne man su ma amee lenn lu may wax rek Macky Sall laa koy wax parce que tey yaakaar naa nit ku nekk su fekkee da nga bëgg a def benn affaire ah su fekkee da bëgg def benn affaire ah nga sondee sa askan yëpp dog taxaw ne la lii nga bëgg a def non mais ak lu mënta doon rek ak loo ko bëgg-bëgg rek ak loo ci mënta loo ci mënta gañe rek dem askan yëpp dog nañ ne non rek danga war a bàyyi mu sedd bu fekkee jàmm nga bëgg yaakaar loolu mooy li xamante ni moo losi njiit noonu lay doxee quoi lépp loo yëgati ñëpp ne non ah wala ñi si ëpp ñëpp ne non nga xam ne du jur jàmm mais da nga war a bàyyi mu sedd loolu mooy yëfu njiit man li ma ciy wax loolu la quoi lépp lu am rek à cause de Macky la parce que xamoon na ne lii day am parce que bi bi affaire bi amee ba léegi gis na Sénégal yi ni ñuy réagir gis na Sénégal yi ni ñuy réagir xam na ne carrément lii bu àggee fa mu jëm rek lii dina am moom lii bettu ko ca parce que da koo bëggoon am na da koo bëggoon quoi man pour man Macky moo bëggoon lii et puis Sénégalais yi lii occasion bi nii dafa nekk dafa tombé dafa tombé affaire Ousmane Sonko bi rek mais bu doon beneen occasion tamit nii lay demee parce que Sénégalais yi ñoo xiif wàcc seen bopp dañ koo xiif mais dafa tombé action Ousmane Sonko bi rek mu demee nii mais bu fekkoon action boobu man mii la dal sax Sénégalais wàcc parce que Sénégalais yi ñoo xiif wàcc wax ak Macky loolu la léegi jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko président Pastef bi di Ousmane Sonko yow noo ko gisee est-ce que teg nañ ko ci yoon tamit. man mosuma man depuis ba affaire bi amee ba léegi lépp ko man pour man complot la loolu laa jàpp te loolu laa jàpp ba ilaa yow mi dini parce que indi man indiwul fi lenn loo xamante mën a dugg sama bopp bi loo xam ne dama koy mën a jàpp ne Ousmane Sonko dafa def lii wala dafa def lii amul et puis wax nañ Adji Sarr ay mbokkam wax nañ ah a teg ci loxo nit ñi ko gisuñu ko dégguñu ko kon nekk ni am na leneen lu ñu koy toppee muy euh, trouble à l'ordre public maanaam euh, jaxasoo yi mooy li ma la wax rek bu fekkee tey bu fekkee tey yow am na looy ut li li li Youssou di wax rek nit koy wur xaw ma wiiri wiiri amoo fooy jaar da ngay seet fa nga gën a jege nga jaare fa noonu la demee parce que xam nañ ne beeru jaar lu ñu andi bii c'est ça quoi. Euh, man daal loolu laa jàpp. bon démb ni ma ko jàngatee mooy xam nga di naqar lu mbir mi. xama nga comme xam nga comme bépp sénégalais xam nga démb xew démb ñaaw na trop xam nga si démocratie Sénégal xam nga xam nga si xam nga si pays buñ ne pays de droit la xam nga Sénégal adduna bi yëpp démocratie lañ ko taggee xam nga gars yàgg nañu félicité ay États-Unis fu ne yàgg nañu félicité Sénégal ndax démocratie mais démb recul de démocratie moo am man j'ai comme l'impression que ni xam dañoo dellu vingt ans ci ginnaaw xam nga xam nga xam li am démb ñu ngi koy naqarlu ba fu naqarlu yem. xam nga te responsabilité bi yëpp Macky Sall la ak le préfet de Dakar man démb laa gis benn autorité bu taxaw naan ay nañ dóor nañ door ay lacrymogène si ay journalistes ñoo xam ne defuñ dara lu dul teewal askan bi. préfet Dakar. waaw préfet Dakar moom Aline Badara Samb moom laay wax préfet de Dakar monsieur Aline Badara Samb li nga def démb ñaanu trop ñaanu trop autorité waroo taxaw naan nañ xam nañ taal ay xam xam nu ay lacrymogène si kaw nit ñi xam nga xam loolu ñu ngi koy wax si kaw en haute voix ñu ngi koy wax li mu def démb ñaanu trop. dem Sénégal bu doon pays de droit la moom préfet de Dakar dañ koy jëli si sens dañ koy jëli si sens yi moom préfet de Dakar li mu wax démb c'est honteux démb damaa rus man Sénégalais moo di Ousmane Sonko ñu koy toppee fi mu nekk nii euh, euh, euh, manifestation yi ñu def démb ñu koy toppee trouble à l'ordre public yow hmm. loolu nan ko jàngatee jàpp ñu ko jàpp démb. waa man waa man xam nga xam nga nee nañ xam nga nee nañ xam nga duñ tontu duñ tontu question ak question mais xam nga mais question bi dama koy tontu ak question. mais ku nekk ci biir otoom toog ci biir otoom naka la mun a créer loolu naka la mun a créer nga toog sa biir oto. mais nag dafa am fu ko jaarloo woon te jaaru fa. waaw pourquoi muy jaar fa yéen gis ngeen lu xew yéen journaliste yéen ko njëkk a wax démb maa ngi dëgg maa ngi taal sama écouteur dugal ko samay nopp yéen journaliste yi yenn a njëkk wax par Isatine par la voix de Isatine seen xam seen confrère bu nekkewal wal fajiri moom moo dem si corniche bi fekk fa ay xaw ma la la xam nga dañu naan ay mbër lañ mais man d'accord ma ne ay mbër lañ ñooñu ay xam ay nit la ñu inconscient nekk xam nga nekk ci dëkk bi duñ rus xam nga seeni morom kese ñoo fi yor ay teranga yor ay oto di dawal ci dëkk bi xam nga lépp fayatin lañ ko defee ba am loolu noonu xam nga ñuy nangu ay politiciens yu tekkiwul dara yoo xam ne duñ niti dara ay niti seetaane lañ di leen utiliser dañoo war a bañ loolu xam nga ñoom yat yu ñu tee di ko dóor ay sénégalais lañ koy dóor comme ñoom xam nga seeni rakk seeni jarbaat loolu moo tax waa ji jaarul foofu parce que xam nga ñun dañoo ut waa ji ba sonn mënuñ ko am xam nga lu nekk xam nga fu nekk takkal nañ waa xam-xam li leen waa ji wax moo nekk moom dafa weex comme nees sax waa ji moo ko raw ñu ko takkal def na quinze ans si administration ñu wax ne 10 francs bi moo ko luubal lu nekk takkal nañ ko ko mu rëcc fu nekk takal nañ ko mu set wécc génn sët ñu takkal ko viol ñëpp xam na Sénégal yëpp concentré ne lii amul viol amul dañ koy takkal xam nga ñu koy xam ñu koy jéem a collé motif xam nga convaincre ñun ay sénégalais lañ di xalaat. wax waa ji mu dem wuyu ji muy dem wuyu ji pourquoi muy dem wuyu ji ah nekk xam ma ne nekk magum jëm ñu naan ko fii ngay jaar pour quelle pour lan mu war a jaar fu ñu koy jaarloo te mu am droit jaar xam ma jaar fu sénégalais war a jaar comme ñëpp. mais ak manifestation yi am démb euh, yàqu-yàqu yu bëri am ci ba bi nga xam ne moom ngeen jàkkaarloo gis ngeen ni ko gaa yi loolu jaar na yoon. waaw xam nga waaw loolu dañ koy ñaawlu xam nga loolu moom dañ koy ñaawlu du rafet xam nga nit mun nañ manifester mais nañ ko xam nañ ko teg ci yoon na civilisé. xam nga Macky Sall daf ñoo bëggoon noot dañuy bañ ba tëdd si suuf mais nañ ko teg ci yoon mu ànd ak yar ànd ak comme sëñ Habib nu mu ko waxee démb si Malick xam nga ñu ngi kontaan ci moom xam nga di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wër démb taxaw na démb comme papaam nam daan taxawee bu xam nga bu xam bu kii bu situation yi amee wax nañoo ak waa ji na nekk nit Macky Sall nit ñi xam nit ñi dañoo fayet teg seen i bakkan 16 morts moo am en 2011 pour mu nekk président moom tey warul fay lii réew mi war na delloo xelam fii muy jëm nii si moom lay métti rek si moom lay métti bu fekkee ay prison la yaakaar pour xoxotal nit ñi ñun pare nañ na tabax ay prison pare nañ pour dem prison pour Sénégal pour démocratie Sénégal taxaw ñun pare nañ pour dem prison. donc du ngeen bàyyi mu sedd. ban ba xam ban bàyyi mu sedd chaque jour dañu xeex suñu droit ci yoon nag en voie légale ci yoon lañ koy teg xeex suñu droit xam nga ñu am nañ droit résister dañuy résister ragaluñ de. duñ ay ragal bu fekkee ay ay ay nervi yu mu génnee nañ ñu jël si rey ñu ñun nangu nañ dee pour Sénégal nangu nañ teg suñu bakkan pour Sénégal nangu nañ dem prison pour Sénégal pour démocratie Sénégal waaw na ko xamee noonu. waaw bi nag ñëw fii dama fi ñëw pour jënd si mais euh, man euh, ouvrier laa waaye dëkk bi moom wax dëgg fa yàlla bu ñu waxee dëgg dëgg dëgg rek lu fi nekk ah musul am musul ko gis parce que daan kii jaay doole moom mooy li ñu nemmeeku mooy li ñu gis parce que euh, bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti xool jamonoy suñuy maam ay ñoom la Ah, ay ñoom Sidi euh, Yandate yàlla seen problème ak euh, Faidherbe bu ñu ko indiwaatee Senghor ak ñoom Omar Blondin Diop Senghor ak euh, Mamadou Dia bu ñëwaatee kon ba tey nooteel ba tey mi ngi mi ngi dox parce que tey jii lii am nii du lenn lu nooteel amul leneen loo ci xamante ni si mën nañ koy nemmeeku lu nooteel parce que koo xamante ni si def naag deful ki nga xamante ni si moo accusé mënuñu koo xam uh, fi waay këram nekk mënuñu koo xam ni kidnappé ki nga xamante ni mooy ki nga xamante moom moo accusé dinaa dégg ki nga xamante ni moom lañu accusé tamit nu ñu doxalee ay mbiram moom mooy li nga xamante ni si daal moom lu lu lu Sénégal yëpp di métti lu la. dëgg la moom Ousmane ñu jiñoon ko li nga xam ne moo di viol ba mujjeewul fenn lu dul trouble public maanaam dëkk bi nga xam ne ni mu jaxasoo démb moom lañ ko jiiñ yow loolu nan ko gisee ndax jàpp bi ñu ko jàpp teg nañ ko ci yoon. waaw c'est normal xam nga la ma tax c'est normal parce li nga xamante ni si moom mooy li Sénégalais yi doon yàgg muñ xam nga nit boo ko toogee ba mu buy buy dikk lu lu muy ñëwee du ko tey parce que dafa nekk boo boo toppee histoire mooy li ma la wax sànq rek boo toppee histoire tey jii ñëpp dañ lay wax ni la say maam tubaab bi ni lañ leen def tey jii ba ba tubaab bi demee ba sonn ci say maam dañoo ñëw indi ay tubaab yu ñuul tubaab yu ñuul yooyu ñoo gën a piir tubaab yu weex yi kon tey jii sës la ay sët ñoom ñooy ay sët tey ji ñu fi nekk ñun ñëpp muy yow di man di keneen di keneen ak keneen ak keneen suñuy maam ak su ñuy grand père ak suñuy ñëpp ñoom ñëpp dañ leen a sonaloon léegi nag tey sët yi tey ji moom ñoom ñoo ki parce boo gisee nii Ousmane Sonko lu situation bi doxee nii nga xam ni nii li phénomène la loo xamante ne lu yàggoon am la léegi yàlla wàcce benn nit boo xamante ni si moom mooy xeex pour lool rek ma loolu laa gis franchement waxuma li xew démb sax mais en général li xew ci réew mi quoi parce que ñun ñëpp ay citoyens lañu sommes des citoyens peut-être li koy indi yëpp mooy leen accusation de viol ci sur une fille voilà man damay wax li may wax parce que peut-être on dira que sénégalaise la sénégalaise la sénégalaise la mais il faut savoir fair un choix yaa ngi dégg waaw c'est une fille mais quand même une c'est une fille qui n'est pas de bonne mœurs donc bu mu tax ñu jël lu tol nii. koo xam ne prétendant la à la haute à la haute euh, position de l'État ñu koy tëkkalanteeg une fille qui de bonne mœurs et pour des choses yoo xam ne Sénégal xale bu ndaw bu jógoon sax ñu xam ne lii du viol euh, de grâce moi j'ai jamais été avec Sonko mais nañ xam ne actuellement Sonko fi mu toll ñoom ñoo ko fa yóbbu c'était un jeune boo xam ne amutoon benn avenir politique bu caaxaan jeexee dëgg des mais ñoo ko plébiscité ñoo def promotion ba mu toll fii mu toll voilà nañ assumer nag devant leur responsabilité pour liñ xew ci réew mi suba wala gannaaw suba wala gannaawaati suba. Euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko li ko doon toppee moo di viol waaye d'après li fi jot a xew démb ak manifestation yi euh, trouble à l'ordre public lañ koy toppee loolu ban jàngat nga ci def ak arrestation bi nga xam ne def nañ ko démb. Euh, je pas juriste xaw ma mais nag trouble à l'ordre public ku muy dem yoonam dugg ci biir otom di dem ay nit bloqué ko circulation au lieu que ñu encadré ko parce que police gendarmerie ñu xam nañ ko maintien d'ordre on le connaît très bien ñoom buñ bëggoon xàll yoon bi encadré ko dina yegg fa mu yegg te trouble du am parce que le manifestants la ñuy écarté mais ku nekk ci biir oto mënoo ko mënoo ko accuser de trouble à l'ordre public il n'a pas fait de trouble ñi def trouble nañ leen nañ leen génnee ci yoon bi bàyyi ko mu dem fa mu war a loolu moo mu a ne mais man de ci sama humble connaissance mënut am trouble à l'ordre public jóge nañ ci accusation de viol léegi ñu ngi ci accusation de trouble à l'ordre public parce que euh, il faut coûte que coûte ñu éliminer ko dans la course peut-être à la présidentielle de 2024 moi je dis ce que je ressens et tey jii pour vous dire carrément tey man je suis apériste au premier tour Macky Sall du premier du première du euh, Euh, nomination bu njëkk bañ koy fal bu njëkk ak bañ koy fal bu njëkk bi yëpp bu mujj bi yëpp je peux dire que j'étais à la tête tout parce que sama carte laa ko jox mais man je je déteste l'injustice te il y a injustice dans cette affaire bu ko waxantee dëgg am na injustice dans cette affaire et j'assume ce que je dama ko assume te ñeme naa ko voilà merci chers amis téléspectateurs Equivox TV euh, ñoo déggandoo nag kàddu yi nga xam ne jib na fi rek euh, ci euh, mbirum Ousmane Sonko aji sar ak manifestation yi nga xam ne jot na fee am démb fii la ñuy daal di yem ak yéen nag tey te di leen jox rek dig daje ëllëg incha allah.